daal di wax ci Abass Fall bokk ci Pastef nekk it adjoint au maire bu Dakar maanaam tofo ki nga xam ne moom mooy ab Barthélémy Dias moom Abass Fall nee na ko yow Ousmane Sonko dañ lay bañ di yaakaar ne mënoo nag yegg ci objectif yi nga bëgg ba tax nag ñu bëgg laa yàq. ñoom ñooñu nag dañoo gëmba lu la leen gumbaloo lu du lenn nag lu dul ak mbañeel goo xam ne dañ la ko teg nga nekk nag nit ku dëggu loolu nee nañ mësul gis ab leader politique boo xam ne mu ngi daj li ngay daj yow président Ousmane Sonko ñu ngi lay attaqué di la agressé lu nekk nag ñu ngi koy teg ci sab der lenn nag soxlawuñ ko rek lu dul yàqal la ambition bi nga xam ne am nga ko ci réewu Sénégal maanaam defar Sénégal ba mu def baax dal de koy ñoŋol ba ñëpp nag teg ci seen gët. moom Abass Fall nee na Macky Sall ak ñamu àndal ñoom nag comprendre ñu benn yoon li nga xam ne moom la yàlla dogal maanaam daal daal dee lay sàmm te it ànd ak yow nee na ñun nag ñun dañuy xeex xeex bi te it dinañ la sàmm sàmm projet bi nga xam ne moom nga bëggal réewum Sénégal dinañ ko def nag daal di soppi xar kanamu Sénégal googule nee nañu dinañu résister ba fu résistance yam ndax dangay bokk focus 2024 président Ousmane Sonko day bokk wante Macky Sall mi am ñaari mandat moom du bokk ndaxte nag jàpp nañu ne moom ay mandat am jeex na te nag nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs mu mel ni nag loolee da ko réeree mbir ci suñu réew mi di Sénégal ndaxte nak bo démé ba def 12 ans dafa wara appelé mu mel ni modèle Ablaye Wade le ki di Macky Sall bëgg copier wante bu amone ak càngat tout rek dina xamné lolé mom du dox Sénégal benn yoon te it moy gëna a les Ablaye Wade ndax Ablaye Wade mom waxul woon benn yoon ne benn candidat du bokk wante Macky Sall moom da cee boole bëgg bokk ba pare te ne keneen du bokk.